ça dit encore, Ousmane Sonko est entre les mains de la justice. Ce inacceptable et inadmissible. Le combat donc doit continuer pour qu'au-delà de cette affaire Ousmane Sonko, que tous les détenus politiques soient libérés. Mais également, le Sénégal, ni Sénégal tey jii li am mooy Sénégal qui boppam ñoo taxaw pour faire am ay liberté am démocratie donc loolu dañuy xeex ba mu jeex te bu li nga xam ne moo xew tey day wane ne peuple sénégalais pare na pour taxaw pour xeex ay droit am te droit peuple sénégalais yi kenn mënu ko dindi parce que peuple bi moo gën a fort président peuple bi moo gën a fort ñun ñëpp ndaxte peuple bi moom moom réewam li nga xam ne ne moom la peuple wax tey mooy gasi gasi mooy lan kenn dootu si taxawati nekk buur di def lu la neex nga def au détriment des intérêts supérieurs du peuple sénégalais loolu c'est inacceptable c'est la raison pour laquelle jeunesse bi jigéen ñi góor mag ak ndaw Sénégal yëpp taxaw pour xeex Sénégal am démocratie Sénégal am ay liberté et loolu du lu ñuy négocier loolu moo tax euh, taxawaay bi dina gën a taxaw takku bi dina pour que ñu continuer faire, pour que le régime du président Macky Sall libéré tous les détenus politiques mais également ñu am de manière irréversible une démocratie et l'expression vivante des libertés dans notre pays. Je voudrais dire ici qu'aujourd'hui nous célébrons la victoire du peuple sénégalais. Même si c'est une demi-victoire,